mbokk yi déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi gannaaw bi ñu sante yàlla sunu borom subhanahu wa taala ñaanal xewal ak mucc suñu yonentu mu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko ay sahabaam ñaanal ko attabiin ñaanal ko atbaau tabiin waaye ñaanal ko ñëpp ñi nga xam ne jug nañ ngi teg seen tànk ci yoonu yonentu ba sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi kon dellusiwaat nañu ak yéen suñu jotaayu tafsirul quranil karim xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratu ali imran ci aaya vingt ñu ngi tolloon ci suratu ali imran ci aaya vingt ci koor gi nga xamante ni la ñu génne xam ngeen biiru koor gi yëpp ñu ngi doon def euh, diiru koor gi yëpp ñu ngi continuer woon doon def jotaay ci tafsir bi waaye xam ngeen ne comme koor gi jàll na ndax diiru koor gi yëpp dañ ko daan def chaque jour maanaam bis bu nekk waaye bu koor gi jàllee nag moom fara ajuma rek incha allah lañ koy def lu jiitu loolu ñu ngi balaax ñëpp di balaax ñëpp di ñaan yàlla mu boole ñu baal yàlla nanguñu suñu koor yi nanguñu suñu naafila yi waaye nanguñu suñu mboolem jàmm yàlla yi waaye mu jégal ñu suñu mbooleem bàkkaar yu njëkk yeeg yu mujj yeeg yu nëbb yëg yu feeñ yi waaye e, itam lépp loo xam ne koor dana ko def ci nit rek ci lu baax ah njéggal gaag goyal ga ci safaraag yëpp yàlla nañ ko yàlla boole defal defal ko mboolem bi xam ngeen ne suñu jotaay bi mujjoon ñu ngi taxawoon ci suratu Al Imran ci aaya vingt-neuf muy tolloon fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe taala auzu billahi min ashaitan irrajim bismillahi arrahmani irrahim qul in tuxfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu allah ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير نقول سبحانه وتعالى دفنون وقال لي ينتبه عليه الصلاة والسلام نقول قاعي ملين لب لو خم نب نينكو كسيان دني ولا نفعل معنا لب لو خم نب نينكو كسيان خالي واخ نينكو ولا واخ نينكو دنج كو نب يا الله خم نلول ده يا الله كات خم لب لو نينكو أسمان جروم يا أسفي جروم يا ده يا الله كات lu nekk la man te incha allah ñu war a dalee ci aaya aaya trente mu ngi tolloo fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min gayrin muhbara وما عملت من سوء suin tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baida wa yuxadirukum wallahu raufum bil ibad mbokk yi suñu borom subhanahu wa taala nee na ah yow ma tajidu fàttalekul bis ba nga xam yow ma bis la boo xam ne tajidu dana fekk kullu nafsin bépp bakkan maa amilat lu mu jëfoon min xayrin ci yiw muxdara mu da aji teew fa nekk ca bërëbam waaye wamaa amilat lépp loo xam ne jëf na ko itam min suuyin ci lu bon dana ko fekk muxdara su ko defee nag te dana mébét moom ki defoon lu bon wala yaasu billah te waddu day mébét law anna baynaha bu nekkoon digganteem wa baynahu ak diggante jëfam ju bon mu nekk amadan diir boo xam ne baidan diir bu sori la yàlla nag ne way yuhadirukum mu ngi leen di wëttandekuloo allahu yàlla nafsawu boppam ngir ngeen moytu ko wallahu yàlla raufun aji ñëwent la moos aji yërëm la aji ñëwent la bil ci ay jaamam mbokk yi suñ borom subhanahu wa taala nee na boo liggéey yowmal bi ne nañ nazalat haadihi fi lmunafiqina walyahud aay bi mu ngi wàcc ci naafiq yeeg yahudi suñ borom subhanahu wa ne lépp loo xamante ni waaye def na ko ci jëf ju baax boo léegi yomal xiyaam dana fekk yàlla bind ko teg ko ci bërëbam kon nag xamal ne lépp loo mën a def ci àdduna ci lu baax jarul ngay xool nit gis ko wala nit yëg ko déedéet def ko ngir yàlla rek amaat def ko nekk ngir nit ñi yëg ko wala ñu gis ko xanaa ngir nit ñi maanaam da nga koy def ngir yàlla rek waaye na nga yëgal ko euh, euh, ku mel ni yow ngir moom itam su fekkoon da doon def da ci jàmm yàlla ci benn muy góorgóorlu yokk maanaam mu xam ne lii lu baax la gis na yow yaa ngi koy def te yow yaa ngi moom yéen a yem ndax ni nga mel la mel li ngay dund lay dund maanaam yéen a bokk daal Euh, lépp rek kon nag mu gis yow ngay def jaamu yàlla gu rëy nii nga baaxee ko xamal ko ni ko lii jaamu yàlla gu rëy la moom itam mu góorgóorlu li ko def loolu tam am na solo lool. Euh, suñ borom subhanahu taala nee na lépp loo xam ne jaam bi def na ko ci lu baax ba léegi yomal xiyaam dana fekk yàlla teewal ko ko fa ca bërëbam waaye kasaalika su fekkante ne jëf na safaan itam noonu la koy fekkee de. suñu borom ne na waaye jaam bi bu jëfee safaan nag dafay ngéeju digganteem ak safaan su bon soosu mu nekk diir boo xam ne bu soree yi la maanaam bu mu ko jege yàlla nag ne maa ngi leen wattandikuloo yàlla nag na ngeen moytoo mooy yàlla mooy yàlla na ko moytu yàlla ne na mu ngi leen moytuloo boppam ndax yàlla kat dafa leen yërëm dafa leen ñëwante ndax yàlla ku ñëwante ay jaamam la kon loolu lu ama am solo la loo xam ne lu mat a bàyyi mbokk yi ba tey suñ borom subhanahu taala nee na ñi nga xam ne nag ñoom ñoo wax ne dañoo bëgg yàlla wala dañoo bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu boroom nee na kaay leen fii su ngeen ñëwee fii rek ngeen jëfe lii rek ma xam ne yéen bëgg ngeen yàlla mu ngeen di wax waaye bëgg ngeen yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngeen di wax suñ borom ne qul waxal yow muhammad alayhi salaatu wassalaam ne in kuntum ndéem nekk ngeen kay ne tuhibbuuna da ngeen a bëgg allah yàlla da ngeen bëgg yàlla ah kon de fattabi'uni topp leen diini sama diine topp leen sama diine de qul in kuntum ndéem nekk ngeen kay tuhibbuuna di bëgg allah yàlla di bëgg yàlla di wane ne bëgg ngeen diinaam bi kon nag fattabiuni topp leen man yonent bi alayhi salaatu wasalaam maanaa saalika fattabiu diini topp leen sama diini su ngeen toppee sama diini rek yuhbibkum dana bëgg leen allahu yàlla maanaa zalika yàlla dana leen dolli ak mbëggeel ca ngeen bëggoon wa yaxfir dana baal moom yàlla lakum ñeel leen dunubakum seen bàkkaar yi ah wallahu yàlla aji jéggal la képp koo xam ne dafay tuub rahimun aji yërëm la ñi nga xam ne ñoo faatu te fekk ñu ngi tuub nazalat hadil aya fi lyahud li qawlihim nahnu abnaau llahi wa ahibaa'uh ala dinihi falamma nazalat hadil l aya qala abdullahi ibnu ubay ya'muruna muhammad an nuhibbuhu kama أحببت نصارى المسيح وقالت اليهود يريد محمدا أن نتخذه أن نتخذه روح بانا كما اتخذ النصارى عيسى حنانا فأنزل الله في قولهم قل أطيعوا الله والرسول fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul bi mbokk yi suñ borom subhanahu wa mu ngi ñu leeral ci aaya bi ne ñi nga xam ne dañuy war ne bëgg nañ yàlla moo xam ñuy ay jul yu tiddee woon ne bëgg nañ yàlla wala ñu nekk ay yahud mbaa ñu nekk nasaraan suñu borom ne su fekkente ne bëgg ngeen yàlla dëgg la ci ne da ngeen bëgg yàlla kon nag dem leen ngeen topp muhammad alayhi salatu wasalaam maanaam zalik dem leen ngeen topp diinay muhammad alayhi salatu wasalaam waaye Muhammad alayhi salaatu wasalaam nekk fi yàlla yónni ko jox ko diine yéen ngeen wane ne da naa bëgg yàlla ah su fekkee da ngeen a bëgg yàlla mu nekk dëgg ci yéen kon nag dem leen ngeen topp mu Muhammad alayhi salaatu wasalaam ndax Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom la yàlla gërëm diinam ji moom mooy diine ji nga xam ne moom la yàlla gërëm diinam ji mooy diine ji nga xamante ni moom la yàlla gërëm kon nag su fekkent ne da ngeen a wane bëgg ngeen yàlla yéen yahud bëgg ngeen nasara bëgg ngeen yàlla yenn nasaraan ah bëgg ngeen yàlla yéen sax ñi nga xamante ni yéen ay jullit ngeen bëgg ngeen yàlla dem leen ngeen topp diinay muhammad alayhi salaatu wasalaam dem leen ngeen topp sunnay muhammad alayhi salaatu wasalaam su ngeen ko toppee rek su ko defee yàlla dana leen bëgg yàlla dana leen jéggal ah bu baax kat fekk nag su ngeen waroon a jaar jaar ngeen moo tax suñu borom leen qul waxal ne in kuntum ndem nekk ngeen kay tuhibbuuna di bëgg allah yàlla fattabi'uni topp leen ma maanaam saalika mooy topp leen sama diine topp leen sama yoon sama sunna yuhbibkum dana bëgg leen allahu yàlla wa yaxfir dana baal lakum ñeen leen zunubakum seen bakkaar yi wallahu yàlla gafurun jéggalaakoon la rahimun yërëmaakoon qul waxal ne atiiu topp leen allah yàlla war rasula ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam su ngeen ko defee de fa lillahi alhamdu wal minna yiw ñeel na leen waaye su ngeen ko defut fay n tawalaw ndéem dëddu ngeen fay na laa naka yàlla laa yuhibbu du bëgg mukk du fay du bëgg alkaafiriina yéeféri yàlla soxlawut seeni jëf mbokk ba tey suñu borom subhanahu wa mu ngi nettali nag ndax waxoon nañu ne saar wi dana indi ay xissa yoo xam ne yu ama am solo la ci xeet yi nga xam ne ñoo jàlloon maanaam ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon ñu baax ñoo ñu jaaroon fi nag suñu borom daf ñuy tuddal ñenn ci ñoom ñu baax ñooñu mooy imraatu amran euh, suñ borom di ñu ko nettali buur ne euh, inna allaha naka yàlla inna allaha naka yàlla istafa tànn na inna allaha astafa yàlla tànn na aadama suñu maam aadama alayhi salaam wa nuuxan ak yonent yàlla noox alayhi salaam wa ibrahim ak yonent yàlla ibrahim alayhi salaam wa ala imran ak ñooñu imran wa ala imran ak ñooñu imran yàlla tànn na leen alal aalamiina ci bindee bi yàlla tànn na leen alal aalamiina ci bindee bi comme que yàlla tànn leen nag maanaam zalika yàlla tànn na aadama def ko mu nekk jullit mu tànn noo def ko mu nekk ci lislaam tànn yonent yàlla ibrahim alayhi salaam ak doomam bi ñu nekk ci lislaam mu tànn ñooñu Imraan te mooy ak Haroun ñi nekk ci lislaam alal alamin ci bindee fi jamono ah ñi ngi wax itam na wa yuqaalu laysa imran aba musa wa harun kon nag suñ borom ne ne inna allaha naka yàlla inna allaha astafa yàlla tànn na aadama yonti yàlla aadama alayhi salaam wa nuuhan ak yonti yàlla noox alayhi salaam wa ala ibrahim ak ñooñ ibrahim wa ala imran ak ñooñ imran alal alamina ci bindee fi jamono zurriyatan ah yàlla def ci itam zurriyatan ay njaboot ñoo xam ne baaduha lenn ci ñoom min baadin ñu ngi tukkee ci ñenn ñi maanaam ñenn ñi ñoo jur ñenn ñi loolu yàlla ko def wallahu yàllam nag mi nga xam ne moom moo def loolu ah samiun aji dégg lépp lu ngeen di wax alimun aji xam la lépp lu ngeen di jëf is qaala fàttaliku ba waxee imraatu imran jabari imrana muy xannata umu maryam xannata mi nga xam ne mooy yaayu maryam ndax euh, maryam mooy yaayu yonti yàlla isa alayhi salaam maryama moomu yaayam muy tudd xannata xànnata moomu soxna si imran la moo imran moomu moom la suñu borom di tudd naan is qalat imraatu imran ah, léegi nag suñu borom ne fàttalikul is qalat ba waxee is qalat imraatu imran is qalat ba waxee imraatu imran jabaru imran ah te mooy ànnata umu mariam ba yahud yi waxee naan nahnu abnaullahi wa ahibbaahu ala diin ba yahud wax naan ñun ñooy doomu yàlla ndax ñun la yàlla tànnal diine ji ah Maryam nag annata ummu Maryam Maryam daal ne rabbi bu ne qaalat fatalik ba waxee imraatu imrana jabaru imran ne rabbi yow sama borom inni naka man nazartu nisir naa laka ñeel la maana zalika mooy def na ñaan naa la nga def maa fi batni li nekk sama biir bi muharraran muharraran ah maa ngi ñaan li nekk ci sama biir bi muharraran ah di yëngu maana zalika muharraran muy doom joo xam ne moom la ëmb mu ñaan yàlla nag mu nekk loo xamante ni doom ju sedd xol lay doon mu ne yàlla ah fa taqabal maa ngi lay ñaan nga nangu mi lii ci man nga nangul ma li ma lay ñaan i naka yow kat yow yàlla anta yow a samiu yaa ji dégg wax yëpp al alim yaa ji xam yëpp falamma wadaata ba nga xamee ne sippi na doom ja ba mu ko yumbee maanaam dafa ñaanoon boromam doom ji nekk doom ji góor waaye mu nekk doom ji sedd xol loolu ñaanoon yàlla doom ji judd na nekk doom ji góor mu nekk yàlla man de dama laa ñaanoon doom ji mu nekk doom joo xam ne ah mu nekk doom joo xam ne doom ju góor la waaye nag doom ji doom ji jigéen la yàlla na ko waaw man maa la gën a xam ne doom ji jigéen la yàlla na ko góor ak jigéen nag yemut waaye loolu la la yàlla sédd kon nag jëlal yàlla dana la ci defal barke boo xam ne kenn du xam ne mu toll ah moo tax mu ne robbi yow sama borom indi naka man de nasartu nisir naa la ka ñeel la mooy ñaan naa la maa fi batni li nekk sama biir mu muharraran mu nekk koo xam ne dañ koy goreel muharraran mu nekk koo xam ne dañ koy goreel muy liggéeyal jàkk ji rek dëkk ci jàkk ji di baytul maqdis nga xam ne baytul maqdis muy jàkk jële nga xam ne moo nekk ca Jérusalem nga xam ne euh, jullit yi ñoo fa nekk fële ca Falastin nga xam ne jamono bi tey problème yu bari yoo xam ne yahud yi ñu ngi koy def jëmale ko fa di leen rey gën gaa metti ji rey di leen def bépp xeetu mbon waaye suñ borom mi nga xam ne moo mën a muccal ay jaamam yal na yàlla muccal jullit ñëpp waaye ñëpp ñi nga xamante ni génn nañ ci àdduna itam yàlla leen yàlla yërëm waaye yàlla xaar leen ci aljana yi gën a kawe te mooy aljana du firdawsil aala waaye mbokk yi Euh, ki nga xamante ni moom mooy Mariam dafa wax boromam euh, maanaam annata maanaam zalika annata dafa ñaan boromam ne ko rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara mu ne ko rabbi yow sama borom inni naka man nazartu nisir naa la kay ñeel la maa fi batni li nekk ci sama biir bi muharraran mu nekk ku ñu góoreel ci jàkka jooju di baytul maqdis ah muy liggéeyal jàkka ji rek fa taqabbal maa ngi lay ñaan yàlla na nga nangu mini ci man sama ñaan ndax naka naka yow yow yàlla anta yow as-sami' yaa aji dégg ji al-alim yaa aji dégg ñaan al-alim yaa aji xam ah ba yaay nangu li nga xamante ni moom mooy ñaan waaye falamma wadaatha ba nga xamee ne jur na doom ja ba mu sippee ëmb mu gis doom ji nekk jigéen qaalat mu ne rabbi yow sama borom ini naka man de wadaatuha himbi naa sama doom ji waaye unsa jigéen laa jur de ah yàlla ne wallaahu yàlla nag alam moo gën a xam bi ma wadaat ci li nga jur de ndax kat walaysa dakaru nekkul góor kal unsa mel ni ki jigéen maanaam awray góor ak awray jigéen bokkuñu liggéey góor liggéey jigéen bokkuñu way naka man de sammaytuhaa tuddee naa ko nag Maryama Maryam moo nekk xel see nekk yont eh, yaa yonti yàlla Isa alayhi salaam way naka man u'iizuhaa maa ngi lay muslu bi ka maa ngi muslu man ak sama doom ji bi ka ci yow wa zurriyataha ak suñu njaboot yi ah wa zurriyataha ak suñu njaboot yi nga musal ñu ci seytaane minu seytaani ci seytaane arrajim kada ku ñu daax yàlla de maa ngi ñaan nga musal ma man ak samay njaboot ci seytaane yi nga xam ne dañ leen a daax ndax seytaane kat bu xasee dugg ci njaboot gi rek dana fa yàq lu bari kon na maa ñaan man soo ma musalee musal samay njaboot su ko defee ñëpp danañ mën a mucc mbokk kon suñ borom subhanahu wa taala mu ne ah ki nga xamante ni moom mooy ànnata jur na doom ja mu daal dina yow sama borom ah sama doom ji nag imbi naa ko waaye man de dama ko imbi fekk mu nekk góor ndax xam nga ne ànnata maanaam maanaam zalika fekk mu nekk jigéen ndax ànnata bi mu ëmbee dafa ñaanoon yàlla doom ji nekk góor su nekkee góor mu mën a taxawee mbiru jàkk ji muy baytul maqdis di Jérusalem gi ngay dégg nekk ci Palestine muy jumaa ju sell muy baytul maqdis léegi nag yàlla def mu ëmb doom ja ba mu ko imbee nag doom ja nekk jigéen mu ne ko ah, yàlla man de dama laa ñaanoon doom ji nekk góor waaye doom ji de jigéen la yàlla na ko waaw yàlla xam na ne doom ji jigéen la waaye nag yàlla ci boppam yàlla ci boppam moom moo gën a xam ne li nga jur moo gën a xam ne doom ji jigéen la mu ne ko waaye yàlla doom ji tuddee naa ko Mariam waaye maa ngi lay ñaan nga musal ma man ak sama doom ji ci seytaane nga musal itam suñu njaboot yuy jugee ci ñoom ci seytaane mi nga xam ne arrajim la nga xam dañ ko dàq ci yërmande yàlla léegi nag bi nga xamee ne yàlla dogal na Maryama ah, Annata am doom ba nga xamee ne yàlla dogal na Annata am doom doom ji nekk mariyam Maryam na nekk ci jàkk ji ndax kat jàkk ji lañ ko la yàlla yaayam nisiroon pour mu nekk koo xam ne day liggéeyal jàkk ji yàlla dogal doom ji nekk doom ji nekk jigéen kon nag nisir bu moom faaw dañ koy matal loolu mooy nisir ndax nisir mooy nga yéene ci sa xol fas yéene def jaamu yàlla jaamu yàlla googu nag boo ko xasee nisir rek masalan tey nga nisiroon ci sa xol ne bi sàngam bu ñëwee dinaa ko woor wala bi sàngam bu ñëwee dinaa saraxe nàngam wala bi sàngam bu ñëwee dinaa def jaamu yàlla sàngam wala wala wala yu mel noonu boo ko xasee nisir nag moom faaw sa nisir mat su fekkente ne nisir gi dafa dëppoo ak mooy yàlla nag moom kenn du ko def masan tey nga nisiroon ne bisu tabaski ba nga koy woor suba ba ngoon ah dañ la naan sa nisir boobu kat kenn du ko nangu nisir gu baaxul la wala nga naan da ngay woor bisu korité yooyu yëpp nisir la yoo xam ne yu baaxul la walla yu ñu mel ila axiri kon nag nisir nisir na moom ànnata mais yàlla bu doom bi juddoo kat dañ koy bàyyi rek mu nekk koo xam ne ci jàkk ji lay nekk di liggéeyal jàkk ji mariama juddu na continuer nekk ci jàkk ji liggéeyal jàkk foofu mu nekkee moom mariama nag nekkee noonu ah foofa nag moom tamit mariama xam naa suñu bindu bi ñëwaat daañu ñëw nag ci mariama moom mbiram nu mu demee fa mariama nekk si jàkka jàkk jàmm yàlla yem ci doon def ak bi nga xamee ni jibril ñëwal na ko ah la ci jot a xew ba mu ëmb doom ji nga xam ne mooy ci yàlla isa alayhi salaam ak yu ca xew loolu ci suñu beneen bind bi ñëwaat incha allah ci lay am waaye suñu bindu tay bi moom da yem ci yaay ji rek mi nga xamante ni moom mooy xam ni moo tax buur ni ah falamma wadaataha ba nga xamee ne imbi na doom ja falamma wadaataha ba nga xamee ni imbi na doom ja qaalat mu ne rabbi yow sama borom li naka man de wadaatuha imbi naa ko unsa fekk mu nekk jigéen wala yàlla ne aalam moo gën a xam bi ma wadaat ci li nga ci li nga jur de walay sa sakkaru déet góor kal unsa mu mel ni jigéen way ni man de sama toxa tuddee naa ko Mariama way ni man oiseau maa ngi musul bi ci yow wa zuriyataha ak sama njaboot ak suñu njaboot min cheytaani ci cheytaani mi nga xam ne arrajim dañ koo dàq moom walit yemande yàlla ñaanam googu na fa taqabalaha nangu na ko rabbuha boromam bi qabulin ci nangu woo xam ne xasanin wu rafet la wa ambataha saxalal na ko nabaatan ab gàncax ak saxal xasanan bu rafet wa kaffalaha yar na ko moom doom jooju di Mariam Zakariya kooku di Zakariya yonti yàlla Zakariya waaye kullama daxala bépp bu dugg see alayhi ci bërëb ba Mariama nekk ci jumaa Zakariya yonti yàlla Zakariya al mihraba ca mihrab ba duggee ngi def ci jaamu yàlla am rek ah wajara day fekk indaa fa rishqan wërsëg woo xam ne wu bari te du xam wërsëg wi fu mu su ko nag moom tam loolu yéem ko qaala mu daal di wax ne yaa Maryam ana laki haza fan nga jëlee wërsëg yi fan nga jëlee ñam yi foo jëlee wërsëg yi qaala tontu ko mariam ne huwa lii de minendillaay mu ngi tukkee fa yàlla ndax inna allah naka yàlla yarsuqu mooy wërsëgal man yashaa'u ku ko neex bi xayri xisaabin ci lu benn xisaab ndax itam xam nga ne Maryama ba mu juddoo nekk ci jàkka ja di liggéey jàkka ji yàlla dogal ñu jël euh, bi nga xam ne nekk na ci jàkka ji léegi ne ñu ne nañ xool ana kan mooy ki nga xam ne moom lañ koy dénk pour mu war koo yar ñu ne fa nag ci seen mbir yooyu ba maanaam may zaalika dañoo def bantale te mooy teg rek ñu xool kan mooy ki nga xam ne moom moo ko war a yar ba ñu wantale gis ne Zakariya ci la mbir ma dal ñu ne kon Zakariya mu moo ko yar Zakariya jël ko dëkkal ko ci jàkka ja di ko yar foofu mu màgg waaye ci biir loolu Zakariya bu ñëwaan ci mihrab ba di def jaamu yàllam su ñëwee dafay fekk ay ñam ak i wërsëg bu bari woo xam ne mu ngi foofu ca mariyam waaye du xam wërsëg fu mu jóge ndax daf koy yéem lool mu ne ko waaw Mariam yow fan nga jëlee lii wërsëg yi foo ko jëlee mu ne ko lii de maa ngi ko jëlee ci sama borom ah sama borom kat moom mooy ki nga xam ne moom ma ko jox. kon nag ci yàlla la jóge ndax yàlla kat moom mooy wërsëgal ay jaamam moo leen di wërsëgal lu ko neex ci lu dul benn exception maanaam zalika ci lu dul benn xisaab yàlla moom daf leen di wërsëgal rek ay jaamam nu mu ko neex. mbokk yi kon su ko defee ñu teg foofu suñu baaraam ba yàlla indiwaat ñu teg jàmm yàlla yàlla nangul ñu suñu jaamu yàlla yëpp nangul ñu suñu mboolem wax ak suñu mboolem jëf lépp yàlla nekk ngir jëmmam suñu borom subhanahu wa taala man na ko na nañu ko defal waaye mbokk yi su ko defee ñu teg foofu suñu baaraam ba yàlla indiwaat ñu fekk jàmm yàlla na yàlla def ci ñu dégg topp te def ko ci yéen yàlla defal seen i mbir te defal suñu bit defal ko mboolem jullit yàlla ñu yàlla toppaloo ndigalam bàyyiloo ñu lépp loo xam ne ay tërëm la waaye mu toppaloo ñu yoonu yonente bi alayhi salaatu wasalaam te mooy sunnaam mu saxal ñu ci ba ila yawmi din wa sallallahu wa ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain subhanaka allahuma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته